mbokk yi diglu ak seetaan leeral TV ñu ngi leen nuyu seen tur seen sant di leen ziyaare ci bis bu tedd bii di àjjuma ci weeru tedd wii ci weeru koor fii ci jumaay Tuubaa ci daayira mu xaddamatul xidma mu mel na ci àdduna wërngal képp saa weeru koor teroo daanaka day xar kanam yu bëree bëri day daal di soppeeku ci lu mel ne néegu yàlla yi wala boog itam yeneen barab yu bëree bëri yoo xam ne dañ fay wéetal suñu borom loolu day bokk na ci barab bi nga xamante nii moo nekk ci dëkk bu sell bi la di Touba di jumaa ju mag ñu ko ñu fiy amal liggéey bu am solo ànd ci liggéey boo xam ne nii Cheikh Salim Mbacke ma joxoon ndigal ci ñuy taxawu dagukaay bi jumaa ji ba ci ñi fi nekk ñëpp bu fi ñëwee naa dog dog bu jaar yoon te du am benn njëkkante du am benn raj raj loo te loolu commencé woon ci 2005 ba léegi nii ñu koy taxawee di ko ànd ak ay commerçant ak ay yëngukat ci wàllu koom ak ay sëriñ ak mboolem taalibe yépp ci ndigal loo xam ne nii wax naa ko léegi suñu saal joxoon ndigal li kon ndogu li loolu moo tax mu am ci Touba daloo gis ne ak rasulullah salaam ci Makka ci Madina Seex Xaadim mooy sa jëwriñ ci Touba kon lépp loo xam ne mu ngi am Makka ak Madina rek war naa xeeñ Touba nam ay Madina Makka loolu mooy solo si. muy liggéey bi yàlla waaye itam di liggéeyub Serigne Touba boo xamante nii day daanaka taalibe yeeg mbokk jullit yëpp ku ci nekk day danga cee war a dugal sab loxo ndax liggéey la boo xamante nii njëriñi kese la. baare bi nag ngi taxawu lii muy taxawu da ko tere ci benn liggéey bu jaar yoon mooy da koo xaaj ay commission rek am commission boo xam ne da koo da dénk lépp lu jëm ci wàllu organisation bi maam lal ak def wàccaay njëkk ba képp ku dugg ci biir sàpp si mën a jox sa ndogu ni mu war a te du am benn njëkkante mel ni ko bëgg nga dugg ci jàmm génn jàmm soo paree ñu mën koo lalliwaat raxas ko set minaas ko delloo ci melokaan meloon te loolu mooy commission d'organisation ànd ko taxawu mboolem ñi ñëw ba ci naafile gi bu dee ci ko bu dee ci wàllu social tamit muy commission boo xam ne taxaw ci wàllu jàppalante ak dimbalante ba ñi nga xam ne ñoom ay gàllankoor ci liggéey bi wala aajowoo ndimbal lool ñooñu mën taxaw ci jàpp leen seen kéemtu la kattan am commission boo xam ne nii dañ koo dénk ne wàllu conférence wàllu culture bi. moom tamit day amal ay ay conférence ñetti xaaj ay duruus ay mawduwaat ay fatawa ngir lan ku am sam laaj ci diine man la koo leeral ba leer la ku bëgg a jàng ku bëgg a nafar la nga weesu woon man nafar ku bëgg a dégg waare nga dégg waare loolu mooy commission bi nga xam ne mooy wàllu éducation am commission boo xam ne koy dénk wàllu communication moom nag lépp loo xam ñu ngi koy ñu ngi koy def jumaa ji jëm ci ndog yi ak conférence ak sociale yi moo taxaw nag pour leeral ko wane ko àdduna bépp gis ko ànd ko mboolem organe yëpp mel ni bii ñu ànd tey jii ci wàllu Leral TV ñëw fi jël xabaar yi man koo tasaare ci mboolem taalibe yëpp ñu xam ne lii mu ngi amee fi jumaay Tuubaa te ñëpp ñoo ci bokk. liggéey boobu nag daanaka dañ koy amal ci weere koor gi yëpp. bët bu set rek daanaka ay jullit waaye itam taalibe yoo xamante ni dañuy bàyyikoo ci barab yu fasantikoo yu nekk ci biir dëkk bu sell bi le di fi ñëw di fi xewloo gannaaw bu ñu dogee seen koor naka noonu itam di fi wut si seen dimbal waaye itam di leen fi jàngal naka la ñuy toppee seen diine naka noonu itam wéetal seen borom ci weeru koor wu sell wile. ndogal nag at sa at mu ne day gën a day gën a yéeg day gën a jaar yoon day gën a a matale ndax ndogu li soppeeku na baax a baax ci mboolem xarkam yëpp soppeeku na ci wàllu qualité ak ci quantité soppeeku ci wàllu xaalis ndax toon nii daaw rek ñu ngi baare ci ay 62 millions yu teg loolu na boo ko déggee ci ndogal yi da xam ne ndogal ndogal yi mu ngi am avancement baax a baax te leen tamit daa am daa am lu ci yokk yu bëri bëri xam ne bu njëkkoon naan gën mburu waaye ren day dolli rek ndax keneen benn fu boo xam ne nii mooy liggéey yooyu loolu baax saa dina ko leeral jëm ci wàllu jëm ci wàllu liggéey tamit weesu wu tamit dalal nit ñi rek ci tekk ak tey ñu xam ne ndogali la laajul njëkkante laajul xëccoo lépp day jaar ci yoon rek te loolu mooy li wote fii mooy dal ak yiw ak yaru ndax fi fi nekk nii jumaa la te jumaa dafa am yum laaj ci wàllu diine am yum laaj ci wàllu àdduna ca aada am yum laaj ci wàllu murit gi bi nag boo xoolee ci ba lañ ko mën a xam dëgg-dëgg ndog la fa jeex waaye jàpp naa ne bis bi lu mu néew a néew néew da laal un million jëm kaw benn bis bi lu mu laal laal loo ko cof cof cof da nga laal moo tax daaw ay 62 millions 300 nangam mille 62 millions yu mu teg daaw am na ci financement. ak lu ci mel ne suukar suukar nga xam ne bis bu set dana jëfandikoo 5 saako suukar ci la wàññi ci loolu ni ñu koy suukaree. mooy lu ci mel ne euh, café gi ak bisaab bi ak jinjeer ji ak meew ci loolu lañ koy suukaree kon loolu bu buñ ko xaymaa ci ci ci ci ci bis bi ci bis bi maanaam loolu day nekk loo xam ne lu am solo day nekk buñ paree budget bu bu bari lay doon ndax daayira Moukhaddamatoul ma li muy jiital saa su ne mooy membre yi nga xam ne ñoo nekk ci daayira bi bu bu bu koor rek ñoom ñëpp ku ci ne danañ la sas sas woo xam ne moom lañ lay topp bi ne la sas yi moom ngay joxe nga xam ne loolu buñ ci accès di di di di profité du niveau Cheikh Mouhamadoul Mountakha moom mi nga xam ne mooy xalifa général di murid nga xam saa su ne waxtu wu ne moom it addiyam moom moo koy jiite nga xam ne kor gi rek andi na ju am solo waaye ci wàllu financement wax dëgg yàlla amaguñ ci benn jafe-jafe tey séntu wu ne dañ ko ci am ndax taalibe yi xam nañ li nga xam ne daayira Moukhaddamatoul moom daayira Moukhaddamatoul Khidma moom la ñuy liggéey tey liñ koy liggéey fi ñu koy def nit ñëpp ñu ngi koy gis dimbalante nag soxla nañ ko ci jamono ju nekk waaye rawatina weeru koor wi la ñu nekk di weer woo xam ne daanaka ngëneel li kese la ba tax na day képp koo xamante nii day def nga ci sa ñaq day daanaka doo ko rëccu ndax itam dañ la ko fulal lu baree baree bari xanaa rek ñu ñaan rek suñu borom nangul ñu suñu koor naka itam may ñu ñu fekk ko ay at yu baree baree bari